ak boo ko seetee ñëpp wala jéem jeex na بين الجمعية النفاق مجيب ولد الأنصار وثقة بلاد لجنة ومن الذين Thank you.

foofu na njabootu Cheikh al Bounama yëpp doonoon koo xamante ne tey ji génn àdduna umma islamique bi yëpp ñoo ñàkk ndaxte dundam lépp ci diine rek la ko def ndaxte fii leneen amul fi jaasaan boo ñëwee amul beneen beneen amul fowukaay amul dara jaasaan li fi am mooy julli alquran loolu rek moo fi am distraction moom boo ko bëggee feneen ngay dem toogoon te loolu fi mag ñi bàyyi woon ci loolu la daan wéy mu nekk xalifa bi nga xamante ni mooy sëñ bi njëkk a toog te toogaay moom bi da koo toog toogaay boo xamante ni toogaay topp ci ay ndigal rek topp ci ay waxi mag nekkoon baax la fonk sunna kon nit koo xel da daan dal ci moom lool waaye waaw dafa moom ak suñu waajur ñoo gane seen loo àdduna daanaka génération ba mu nekkoon na suñu waajur laataa muy nekk suñu xalifa ba nekk suñu nekk suñu waajur waaw waaw te daal muy sëñ bi jëkk a toog tey doom si troisième xalif bi sëñ bi Ndiassane di alaaji moom mooy waajuram li ñu war daal mooy ñu sant yàlla waaw bu baax dem nañu ay ñoo xam ne seen dund yëpp ay dundu valeur la daal dund yu am valeur dund yoo xamante ni ñuy dund yëpp pour yàlla nga koy defal yonent bi nga koy defal seen maam te lépp ñu ngi nii di waaj gàmm yàlla jël ko dee fàttali ku bàyyi bu bu gàmm ba pare la fi bàyyee ko ah une semaine après gàmm la fi bàyyee ko kon tey jii moom ñuy waaj gàmm moom mu dem lu nekk ak tegtal ya ca yàlla di jox danga ko ñaanal ah tey ku am quatre-vingt et quelque treize ans ñii ni quatre-vingt nangam loolu yàlla la yenn saa yi mag dem ñu jooy waaye li nu war mooy ñu sant rek waaw. di yëkkati sama kàddu rek ci li nga xamante ni moo dal ci suñu kaw fii nga xamante ni mooy Ndiassane di ëttu Cheikh bu Mahamed Kounta dal nañ ci Kounta yëpp nag ndax ki fi jóge tey. tax ñu fee daje ñuy toog toogaay bi muy El Maam bu Mouhamed Lamine Kounta di xalif général yàlla dogal na mooy premier sët di dog bi moom Njaasaan ci wàllu tarixa dund 93 ans bu rafet dunde ko it ci kër gi dunde ko ci ay bokkam waaye dunde ko ci jullit loolu nit koo xamante ni ñi mu séqal diine ji yëpp bàyyi woon nañ ko xel ndax kàddoom yu rafet ak jëfam yu rafet ak it li mu nekkee woon ci réew mi ci nekkin boo ni bàyyi leen xel ñoom ñi nga xamante ni ñoom la bokkal ëttu diine bi muy Tiwaawan ji di kër Seydi Hadji Malick di Touba kër Maam Xaadimu Rasuul waaye di kër Serigne Thiénaba bi nga xamante ne ci la bokk waaye di ëttu Seydina Limaam ku rafetoon waxla la ku bëggoon doomu aadama ku sell ku set ku siluise siluisation nag du sol mbubb jikko la mais ku siluise la nag ak mag ñi dundin gu rafet ci li ñu xam ci Cheikh Bekkaay mi nga xamantene moy mooy Cheikh bou mohammed te Cheikh bu Mohamed sanc ndiasan 1883 Cheikhul bekay moy jikko don khilafa ginnaw Cheikh bou mohammed Cheikh Sidi Lamine Kunte rakam nek fi tok fi tok bu rafet Alaaji Mamadou Kunte mi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah mooy juróon moo doon waay juróom moom it bi def fi ñaari at ak genn wal momit tok fi togay bu rafet. di ñaan sunu borom ba yann ko yàlla yërëm te jéggal ko euh, doon nit koo xamante ni ñun ñii toog yëkkati sunuy kàddu sunuy waajur ak waajuram ak moom waaye ñoom seeni waajur ak seeni waajur muy loo xam ne àndu démb la 1800 bi fi Cheikh Bounama Kounta di ñëw booba sunu maam rek ñu la àndaloon ànd boobu moo dox ba 1883 caatu Cheikh bu caatu Cheikh Bounama di Cheikh bu Kounta toog saan mu and ak ñom tok fi togaay bu rafet mom lolé na da ko xam ñun ñi tok ni di ay domam nim ko àndoon nak suñu wajur nan ko ànd ak ñun dundal ñu ñi ñaan yalla bu baax doom yàlla ko yalla yërëm te jéggal ko wërsëg bi nga xamante daal lañu mën kilifa boo xam ne ah ku téewoon njaboot ndax ñun ñi taalibe sax defuñu woon ay taalibe daf nga dem toog moom boo yàgg moom yàgg danaan la man bëgguloon tamit koo mënta ne nga am mënta nga jaaxle soo ñëwee si moom mu faj ko tey ñaanal ah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla xare àjjana te xam naa ne daf na liggéey rafet si diine ji islam si Imane Ndiassane. moo xamante ne kii ku yërëmoon noonu ay njabootam yërëmoon ay taalibeem yërëmoon askan yëpp ñun ñuy taxaw fii lottul nañu trop trop trop trop di wax ci ay kiraamam ak jaar-jaaram ñun mosuñu tàggoog moom man nii di maam góor Ndiol maag dëkk ak Ndiol ñu ñu ñor mos yor yor organisation saa yi ñu mosee ñëw ci moom ñu ne ko sëriñ bi lii manqué na di ci teg baat daf ñu naan acca kaay ci wàllu liggéey bi moo taawam bi Ahmed boole ñoo ko moom ak feex bu doomam alhamdulilah rabbi alamin ñu ngi ci yàlla bu baax a baax di ko jaal waa Sénégal yëpp di ko leen massawu di leen jaal aussi li ñu bokk ndax euh, lii bu xewee pour ñëpp mën ko yëg ndax ku nekk danga ci am cër bu lu woon ak yéen ñun ñii di njaboot gi dinañ am jafe-jafe waaye yàlla ak yéen yéen a tax ku ci war a jot dana ci jot incha allah ñuy tàggee senegal yëpp ak alam bi yëpp di monde islamique bi sëtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi fi bàyyeekoo tey ci gën gaa rafet anam ndax euh, nit ku dund 94 ans te lépp barkeel yaakaar naa ni boo génnee àdduna naqar bi mooy wéetaay bi nga ñu nar a bàyyi waaye amuñu ci beneen xel ñaar te loo xam ne yàlla subhaanahu wa taala beralu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diine du ko beral kenn te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla beralu ko des fi ndax keroog bi muy génn àdduna bi malaakatul mawtu ñëwee dafa ni ko sa borom nee na nga choisir toog fi ba dat heure bu la neexee wala boog nga dem ndax àpp bi jot na ndax kullu nafsin zaiqatul mawt te yàlla nee na ci alquran wa man nu ammirhu nu nakkisu fil xalqi afala taalamuun ba tax afala taqiluun ba tax na bi ko malaakatil mawti waxee loolu dafa ni ko rafiqul ala dëkkaale jeeg yàlla moo ma gënal kon ku mel ni El Hadj Mambu di doomi Serigne Mohamed Kunta di doomu Cheikh bu Mohamed Kunta le fondateur de Ndiassane en 1883 Mom al maam bu Yalla defal ko lo xamni histoire da koy retenir ba ila yomi diin ndax Ndiassane dotul far ci taarixu Senegal dotul far ci carte géographique Senegal dotul far ci diine ndax ñun kër gu rafet auto bu rafet indi wuñu fi ñun taxawal diine moñu fi indi ndax ñun ay mujahid lañ fi sabilillah ndax sunu mam Uqbat ibn Nafi' al Fihri moom lañ naan oqbat ibnu munaafi al mujaahidul kabir moo dugal islam Afrique en cinquante hijriya la dugal islam Afrique ci jamonoy muawiya ibnu abi sufyaan loolu historien yi xam nañ ko kooku moom la càllale ki di ñëw di ñëw ba ci cheikh Mahdi Sidi Mahamad al Bekkaay mi nekk Vas càllale gi di ñëw ba ci cheikh al Bekkaay cheikh al Bekkaay moo njëkk a sant kunta am ñetti doom yi kunta El haj bubakar sid Omar Cheikh sid Mahamad al Kinti Saxiir الحاج بو بوبكر مومو تيالالم دي نيو دي نيو با سي شيخ بوناما مي نيو ندانك اندي نيو سينيغال ان 1800 لا نيو في اندي في سينيغال شيخ بوناما مومو توغنا في ب 1840 مو ген ادونا تياتام دي شيخ بو محمد كونتا غاني ادونا 1840 1883 مو نيو سانتي نياسان تاولو شيخ البكاي تكسي شيخ الخليفه تكسي شيخ سيدي لامين بروم تاخمي تكسي سرين عبد الرحمن سرين محمد الحاج سيري علي Ali Kunta سيدي Sidi Yahya عبد اللطيف Latif تي غاتال gàttal نيكو ووتو شيخ البكاي كي توك تاي خلافه يال نوك في يالا ياغال تا fi yàlla yàggal te may ko wér muy Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay baayam moo njëkk a toog xilaafa fii si dëkk bi di taawu borom dëkk bi di Kunta une semaine après bayam ñu tuddé ko bayam motax ñu naan ko Cheikh al waaye Cheikh Al Becaye moom bi mu fi jógee 1929 Serigne Sidi Lamine kunta te wuutu ko lépp di rafet 1929 ba 1973 1973 bàyyu Serigne bii fi jóge tey di Hadj mohammed wuutu ko ba 1976. 1976 mu jóge fi Cheikh Sidi Yahya rahmatullahi alayhi mi njëkk a tabax jumaay Ndiassane wuutu ko 76 ba 87 87. cheikh Bou Mouhamed Kunta gis nga Kunta toujours histoire ni mi répéter cheikh Bou Mouhamed Kunta tiatu borom dekk bi ñu tuddee ko borom dekk bi mooy ñu tuddee ko bayam gané aduna deux semaines après bayam mom tam ñu tuddee ko wajuram bu góor di cheikh Bou Mouhamed Kunta tok fi 87 ba 2006 El Hadj maam Mohamed Mouhamed Kunta muy première sëb bi njëkk tok toog ci xilaafay mamam tok ci xilaafay bayam mom rek la ko yalla jagleel do ko jagleel keneen ki di tok mooy deuxième sëb bi njëkk tok waye al hajj mambou moy premier sët bi njëkk tok togaayam yàlla wone ci lu bari ben nok fami bi ndax fami bi du njaasaan rek ndànk moy sunu kër sañ ci ndeer bu yett yépp sunu kër mam la mu yilif yépp nak pouvoir bobu yàlla jox ko ko mu yilif fi yilif ndànk ci gàttal mu tok depuis 2006 lépp ko ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith xewal gi ko yàlla joxol mooy teraanga tuuru si dëkk bi barke tuuru si dëkk bi macha allah wërsëg tuuru fi xam-xam tuuru fi ndax ci reñam si lañ commencé tabax le grand mosquée de Ndiassane ci reñam si lañ njëkkee am résidence xilaafa Ndiassane ci reñam si lañ njëkkee am ay corniche ceinturée de Ndiassane si reñam si lañ am de Ndiassane mais si reñam li ëpp importance si lañ njëkkee amee benn vague bu génn dem à l'étranger ci réew naar yi pour jàngi xam kon xilaafam barkeel nag ba tax na mu doonoon nit ku mën a fédéré ñaata yoon la dem Touba ñaata yoon la dem Tiwaawan musta tànqam lu kenn ci kër diine yi njaboot gi nekk fii ci Njaasaan ku ci am xew moom mooy ñëw xewal la ko ku ciy ci kër wala nga fiy fondement fondation moom mooy ñëw taxaw ñaanal la ci ba ci man mii di wax ak yéen sama kër gi ñëw na fi budul benn budul ñaar ci magum 93 ans ndax yeureum njaboot ak bëgg njabot ak la dire njabot mais arab da nan la gharwa bi adiyin iqtada abahu fil karam wa mashaba aba fama zalam nee eske ki ce nekul ci nit ku nuru bayam ndax nit bo nuroo sa bay rek wàcc nga waaye dafa nuru bayam ndax mom serigne momadou miko jur cheikh mohammed Kunta la fi togal kon cheikh mohammed Kunta moy bayam mo taxone mu don sunu bay ñun ñep te bàyyam maamam jooj ji Cheikh Mouhamed Kounta amul woon appartenance ak tarixa tey jii la diina ji yàqu ku nekk di woote tarixa waaye boo demee këram jii tey nga xam ne nit xaju fa buñ ne soxnaam si njëkk ci kër gi soxna Ndamba Kounta mu jëlee ko ndànk di sëtu Cheikh Al ñaareelu soxnaam mu jëlee ko Touba di doomi Serigne Modou Moustapha le premier xalif de Serigne Touba.